taajab woon taajab woon defoon nañ ko daaw fekke déwén dañuy baaxantal xoolal taajab woon taajab woon defoon nañ ko daaw fekke déwén dañuy baaxantal xoolal taajab woon taajab woon Abdou Jambar ñaari malayka la si kaw lay jóge daanu si suuf taajëb woon taajëb woon ñaari malayka la ci kaw lay jóge daanu si suuf taajëb woon taajëb defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy ba defoon nañ ko daaw fekkee déwén asalaamaaleykum tey nag dañu ñëw nag seet si doomu ngéwal bi sëtu seng bi sëtu biram géy mambaas bi ndax man ku ma xam-xam ne tubaar kàll géwal piir laa ci ndey ci baay ndax man tubaar kàll seng-sengay sama maam rek doy na tiitër tey nag waa teg mi dinaa ñëw sees nag waa ngéwal seeg si nag tubaar kàll fii nag mooy kër seng-seng seng-seng moo jur kii nga xamante ne mooy taawu kër gi ñu naan ko baay Mboor Faye baay Mboor na moo jur Aram Faye Aram Faye jur sama yaay léegi nag tubaar macha allah dañu ñëw nag ci cere tam xarit gi ñu fas yéene leen wax ne ñun doomi géwël yi niñ koy toggee ak nuñ koy defee ndax ñun ku ñu xam tubaar macha allah xam ne ci togg gu neex rek ngéwël la am ndax Assane Ndiaye way na ko cere ju neex ngéwël la am ceeb bu neex ngéwël la am. nu gis nga niñ ko bombé ni defar ba mu bax soos ba nga nee ca wét ga togg nañ ko bu yàgg ngeen ñëw nag tubaarikàlla macha ñu ci lool na len nak sama yaay yaa ngi nyom toog ami nuy sama ñom yaay xarjata wa man parce que dama daan gis euh, niñ ma jangalé man cere moy da ngay tek sa dowlin ba mu sens xam nga bu ñëk ba dañ daan rosi ki bi yap bi yap bi da ngay teg sa dëwlin ba mu sens def sa soble def sa oignon vert yeeg kaani salaat ruusi tamaate ji boo ruusee tamaate ji ba mu dog nga daal diig nga ba mu dog nga ñulug soo ñulugee diigal sa yàpp yi boo diigalee ba xam ne tubaar kàll yàpp baa ngi waaj a ñor nga diigal sa yu sew yi fekk yu sew yi xaw nga ko dooreel tuuti ci dëwlin bi xaw nga ko ci dooreel tuuti ci dëwlin bi nga daal di koy seppi tegee nele daal di ñulug boo ñulugee def sa yu sew boo defee sa yu sew fekk dëbb nga sa nokk ba mu saf ba mu baax nga daal di rosi def nokasi si diigal yëpp ci biir boo diigalee yëpp toog ba mu ñor nga daal di seppi ndax mu bañ a tas na am na ñoo xam ne dañ koy bàyyi ba lépp tas daal di fee sa soosu jaga fekk yàpp bi moom ngay def comme ni ñuy defaree jaga daal koy dooreel tuuti rosi sa tamaate defar sa soos fekk yow ton ni nga sa diw ba mu baax daal tegee ne def sa tubaarkàll ariko blanc def euh, sayu yi nga xam ne moo ci am pour mari pour kiiwee ko bombee ko cere ji fekk jël nga tam ci jaga bi pour boolewaale ko ci bomb bi def sa raisin pour lepp ci bomb bi la bok bomb ba mu bax lolou yep ci téré la bok nga defar ko ba mu bax bu paré nga téggi ték ne dal di bo booli ñew ñi nga xamantene ñoy samedi jamm di nga yakal leen may leen dekk ndoy nga tibbal leen dal di ték lo yep ci askanu ngeewal nak ñun danoo yaatu ñun mayé la xam defar ba mu bax la am ñun lu ñu rek togg lañ koy def togg ba mu neex daal di taaj cere ji it bu nañ koy togg ba mu yaatangal yàkkal ñi nga xam ne ñooy suñu am di jàmm yi ci koñ bi yàkkal leen defar ba mu baax daal di tibb wàññi pour suba suñu xëyee daal di teg ci diggu kër gi daal di ndékki dañuy xëy ndékkiti des suñuy meew ak yooyu yëpp lépp ci cosaan la bokk defar ci ndekki li wàññi bu ñu nekkee sa mën nañ ci wàññiwaat pour reeraat ndax lépp ci cere la bokk nag cere cosaan la lu yàgg la maam yee ko daan def tey ñun ñu ñu ñëw fekk ko fa suñuy doom fekk ko fi te ñun ñaan nañ yàlla suñuy sët fekkat ko fi ndax léegi dañuy def te cere luy wéral nit la xam dañuy def at ba di ko waruñu at at di ko am na ñoo xam ne nag cosaan lañ ko def vendredi ba vendredi bu dañ ci ñoom dañ koy xël di ko togg di ko teg seen kër ndax cere luy wéral nit cere ci la bokk luy wéral ni cere si la ba xoolal suñu maam yi dañ daan yàgg ndax mënuñu waan tëdd te lekk ñu cere te ñun léegi soos yi rek lañ jël ginaar yi ak yàpp yi te loolu baaxul war nañ sa guddi bu ne ñu jël cere la ko loolu ci liy dëgëral nit ak ci luy guddal fanu nit ci la bokk te ñun farataaluñ ko te loolu dañ ko war a farataal loolu la am importance la ma koy wax mbokku julliti ñuy farataal cere ji diko togat def ko na mu naturel ban ci def épices yu bari bari bari na bu ko téyé lañ ci bëgg lek do ko mën nak légui épices yaq na lepp da ngay jël lu ne nga bëgg ko ci def pour bëgg ya daan fekk dalay gañ ko defé fekk nak timis fuñ ko jullé rek nga tek rër bala guddi yépp rees daf ci baax amna ci solo lool man sama mam momako jang ku jur sama yaay moom dafa bëggoon cere ki juru sama yaay ku góor ki moom musul toog jour te du lekk cere cere siim la daan lekk cere jën ak cere siim te balaa ko daan lekk day wis ndox lekk ba pare doog a indi siim gi muy siim doog lekk moo tax dafa dund lu yàgg na xam na ne cere ci luy wéral nit ci la bokk sama maam jooju maa ngi leen di wax daal ñu déwénati fekkee déwén di leen baalu àq di la wax taaja boon gii fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi di wax na sama mbokku jullit yi tey bés bi maa ngi leen ci baal wax bu baax a baax sama dëkkandoo yi maa ngi leen di nuyu di nuyu sama rakk yi ci kër gi du nuyu sama yaay yi ci kër gi du nuyu télé bi nga xamante ne tey jii moo ñëw pour sargal ma pour bëggit nit ñi gën ma ràññee na man ku ma xam-xam ne ci taasu laay yëngu damay dem ci xew yi di anak ak bar masàllaa sama geri nga xamantene ne bàyyiwuñu ma lu ñu am bokk nañ ko di gërëm nak sama ben yaay jo xamni ne mënu ma bañ ko gërëm mu ngi tuddu Aram jaay geey buggu sama koy tuddi ci télé waye il faut ma tuddu ko parce que koku numa men la luma sol mom na na xam nga ne mos koku fu mu tollu daf may digal boy dem ci nit ñi da nga wara jënd yëru bu rafet sol ko dem du géwal nga rek lu la neex nga depo dem da nga war a sol lu rafet jënd say or chaque jour daf may xelal di jënd or di takk comme say ndawle xam nga lan la may dégtal naa ma dama bëgg nga mel ni njoole ndax njoole ñëpp ko bëgg te yow tam damaa bëgg nga dem ba ñëpp bëgg la xam nga ne ko ku bëgg la ma koy ñaana yàlla bàyyi ko fi di dund nag di dem nag si social di dox ci social di dimbali nit yor association bu rëy di dimbali askan wi kooku maa koy ñaanal mbokk yi ne ko ñëpp ñaanal li mu mbëbët di ko di ko def yàlla may ko ci ndam mu dem tubaar kàll ba yàlla kawet njokkam ci lu bëree bari bari ba waaw sa tamxarit nag dañu judd fekk suñu maam yi di ko def waa di rey ay nag di séddale di def ay nar ci jàkk ja ñi bindu ñëw jël géwél yi nag ñoo doon moom bopp ndax euh, mag ñi dañ doon wax géwél moom bopp ndax géwél daan fees ci ngénte yi ci takk yi ak tamxarit ak tabaski waaw bu ñu bu géwél yi euh, feesee ba pare mag yi jàkk ji jox ko juddu dëkk bi muy géwél yi ñu jox leen ko ñu séddale ñëw togg cere yi Euh, daal di séddale waaw bu ñu séddalee lekk ba pare dañuy këpp moom laa doon def nii ak xale yi di di leen ko fàttali ndax këpp kenn defatu ko te boo lekkaan ba pare da dangay jël bool bi ñépp toog ñu ñu jël di ñaan tarifaati ak saar ak ya ca ya cay topp nga ñaan ndax man dama ci am expérience dafa am lu ma si mës a ñaan bi ma nekkee xale yàlla may ma loolu te booba du du woon sax lu lu gën fi ma lekk cere ji laa teg fii rek ne yàlla na am soccante xam nga yëfu xale rek ma am soccante sama kanam gi yëpp fees ak soccante ba de dañ ma mujjee yóbbu yóbbu hôpital ñu tagg ko muy noonu moo tax xale yi man at bu jot bu dee man rek la sax damay këpp sama sama sama néeg moom laa doon wax sama sët yi noonu ne leen teg leen bu ñu lekkee ba pare ma ne leen teg leen ñu këpp tari leen faatiya def falaxi naas def alam nashara def salaatu ala nabi xullalaaw axat ngeen ñaanal ndax xullalaaw axat mooy mooy yóbbu ma day def direkt ndax ñi ñu nekkal ak ñi ñu nekkal am na ñu tukki ndaxte booy ñaan danga leen ciy boole waaw man daal loolu laa fekke woon si li ma jot a fekke ndax mag laa duma mag mais am na lu ma fekke ci samay maam waaw te man dama doon jege samay maam ñu may wax waaw solo euh, tamxarit daal loolu laa ci am ak julli def wérde téeméer ak fukk ak benn xulalaaw ñaanal sa bopp seede yàlla ñaanal sa sa sa njaboot téeméer ak fukk ak benn kula laaw ahad ñu añal dëkk bi am jàmm ñi ne biir réew ak ñi nekk bitim réew waa solo tam xarit man loolu laa ci fekke woon waaw cere démb dafa simploon parce que da def sa tamaate ñamba def sa tamaate euh, bu kii bi loqati def sa sa nu mu tudd laurier dëbb sa sa booba ñun xamuñu sax tin Martin amul won laurier ki lañ daan de por mu neex lol lol lol de ba sa soble ak ci dem rek a saison yoy dal nga xam du upp mais léegi bouillon yi mom yàq na dëkk bi ku deful bouillon def fene sa togg du neex man yoy yëpp dama ko supprimer may toggal sama bop wa may toggal sama bop duma ci def ben bouillon te day neex du yàqu du def dara même bu ma ko dugalu ci frigo du yàqu ndax day simple wallaahi li ne simplicité égal rentabilité mooy mooy loolu waa ñun daal léegi nouvelle nouvelle technologie bi dañu indi seen yëfi bopp te kook ci wax lii baaxul du du la faale waaw de ngoog ah kii maire bi dafa yàgg loolu lañ may wax maire bi dafa yàgg ma ne leen waa yàgg gën bañ a yàgg ñu ñun daan noonu lañ daan toggee ba mu neex du yàqu doo def ci frigo ba léegi nii nii nii am naa frigo mais léeg-léeg ma togg togg yoo xam ne dama koy teg du def tar ndax simplicité ba ma koy toggee moo tax ñi ñuy def te defoon nañu ko daaw fii kii diwin dañuy baaxantal xoolal defoon nañ ko daaw fii kii diwin dañuy baaxantal taaje bon jile lu fi mam bàyyi woon moo fi xew ba tey dañ koy wayal ba mu neex ñu te réew mi yëngu fekkoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal xoolal may doomi géwël naa ay galañ seng-seng mooy sama maam biram géy di mooy sama maam cunde ngoñ ngaraaf yirim ne ci làmbaay maa xam li may wax xoolal may doomi géwal piir la xoolal may doomi géwal piir la xoolal min naa ay galañ bu leen xool ci man xool leen ci son moo ko jàngal waaw waaw xool naa ba xool bu leen xool ci man xool leen ci son moo ma ko jàngal lu ne ci man moo ko ci def moo ma ko jàngal may doomi géwal nee leen may doomi géwal piir la xool la may doomi géwal piir la xoolal seng-seng sama maam jooju lii laa fe defal xoolal lii la yàlla def ku nangul yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex ku nangu li yàlla dogal xoolal bu leen sonal biir ndaw du men lem waaye jooja fajul joojo mer mu yàgg la waaye tey ji jooja faj na joojo jooja des ji nee leen doomi gar mi laay e eh, nee leen doomi gar mi xoolal aram sama yaay dara du ko dindi aram sama yaay dara du ko dindi xarjata du mooy sama yaay dara du ko dindi muuru cuun du mooy sama baay dara du ko dindi nee leen maay duwami géwal piir nee leen maay duwami géwal piir bay duma wayal suma bëggee wayal dama koy waayal dama koy waayal ba mu neex ma kenn du ma teen ñe leen maay duwami géwél bii xoolal dama koy dagg dama koy dagg dama koy dagg yow ba ci kanam xoolal oto laay jeex xeeti naa kaañ olof si jàmm suuf say jalaañoo tey mu jalaañoo tey mu jalaañoo ñepp tey mu jalaañoo tey mu jala ñoo tey mu jala ñoo fii dëgër naam